ci màggalu Touba gi kërug téere gii di les éditions Minane moo leen di présenté ay xéewal yu ngeen mën a yóbbaloo waaw mu jëm ci ay mooli xasida yu mucc ayib ay téere yu Serigne Touba Xaadim Rasul bind ñu firi ko ci français ak ci wolof nooru daaray ni bu taaru lool te murite majmuuh bu def jaalibatul maraaxib mafaatihul bisri taysiir wa asiir ak wakaana xan waaye ñeenti xasida yooyu benn boo ci bëgg def nañu ko ay mool yu rafet te murite lii di ma masaalikul jinaan di téereb Serigne Touba bu siiw boobu ci tasawuf te ñu traduire ko commenté ko ci français am nañu ko ak ñetti téere seexul xadim yi ñu firi ci wolof muy tasawdu si xaar jawhaaru nafis jëm ci ngëm ak jaamu yàlla ak nahju jëm ci yar ak teggin ak yeneen téere yu ngeen yittewoo les éditions Minane lépp loo xamante ne bii jaay nañ ko ci téere 10 pour cent yi dañu koy dugal ci liggéey bi nga xamante ne bii sëriñ bi sumb na ko ci wàllu njàng ak njàngale. yéen ñi ko soxla bu dee ci dakaar mën ngeen a dem boutique islamique albisu jàkkaarloo ak jumaay masaalikul jinaan ci kolobaan ci wetu càmmoñ boutique islamique albisu nekk ci wetu marché njaareem bi jëm stade ba wali bu dee ci dëkk bu sell bi di Touba mën ngeen fa amee téere yi ci maktab tuubaa Daaru Saam ak Baye Serigne lay ci wetu bassin Serigne Moutada maktab sëriñ Mandiaye Kanté nekk ci pencum daaru xuddos jàkkaarloo ak siège village bi ak maktab daaru minam xasaayit ak sëriñ Mor Ndiaye nekk ci pencum daaru minan kër sëriñ Basiiru Mbàkke xaadim rasool téere édition minan barab yi yépp am nanu fa mën ngeen a woote itam ci numéro yi nga xam ne benn bu ci nekk ànd na ak whatsapp muy 77 674 29 45 wala 78 148 17 17 wala suñu boutique en ligne ci daarayni point com Divine.